aha uh-huh. uh-huh. loo teg aywa rabal alamin uh-huh. inni man nag uridu bëgg na ci ray gi nga may ray bu fekkee dag maanaam ma ray an bu a nga waññeeku dellu bi ismi ci sama bàkkaar mooy bàkkaaru ray gi nga ma ray wa ismika ak sa bàkkaaru bopp toggoo gi nga ko toggoo te boobaa fa takun da nga mujj bokk min asaabi naar da nga mujj bokk ci waa sawara wa dalika lii nag ah. jazaau zalimin ah. mooy fayu ñi nga xam ne ah. dañuy tooñ hmm. xanaa moom wax na ko mbir mi ak naka la ak nan la hmm. waaye mag ji dëgër bopp rek mooy qaabil hmm. fa tawwaat rafetal na lahu ñeel qaabil nafsuhu bakkanam seytaane ñëw di ko kuts di ko kuts ah bali xew-xew xat laaqi fa xatalahu mu rey ko ci saasa fa ba mujj na moom qaabil gannaaw ba mu reyee haabil minal xaasiriin bokk ci ñi nga xam ne dañu perte ba ëllëg ku rayati nit ci kaw suuf moom bokk na ca ñu gàddu bàkkaar ba day am ca bàkkaar ba ndax moo fi njëkk a yoonoon loolu hmm? dañuy bëri bàkkaar kay kooku <laughs> kooku kay xam naa li mu yenu moom xaw fu mu kaa waxee ji waaye yaatu na léegi nag gàddu na ko ndax comme mosu gu fi gis gis kenn ku dee fu mu koy suulee ci mooy problème xamul ku dee nuñ koy def moom daal gàddu ko diir bu yàgg lool jang jang jang saa bu tëdd jotee mu di tëdd ñii ne ñeen fukki fan ñii ne at gàddu na ko ko te néew ni mu diisee nga koy gàddu ja liggéeyatul di xëyatul di moom da xaw ma jamono jamono jooju li njaboot gi doon lekk xam nga xaw ma ko man ndax talatu ko jang jang jang jang ba jant so mu tëral yeewuwaat loolu rek doy doy na sanction di jang jang ji mu doon def <laughs> yàlla kay xam naa ne doy na waar ba yàlla yërëm ko ci gàddu bi nag la yebal ñaari baaxoñ baaxoñ yi di xeex benn bi rey morom mi ba mu reyee morom mi mu gës ci suuf cof ko dugal ko ci biir gësaat suuf si dal ci kawam mu maasale ko doom yi dem yoonam fekk moom la ñu doon jàngal ci la naa kon ma gas ci suuf si dugal ko ci biir mu jeex. ba dégg nga loolu mm-hmm. ma ngoog fa baasa yabal na mm-hmm. allahu yàlla sunu boroom mm-hmm. xuraaban benn baaxoñ yabaasu boo xam ne dafaa gas fil ardi ci suuf si ah ma ngoog di ka gas noonu pour pour dugal ko ci i dégg nga li yuriyahu na nawan xaabil kay fa yu waari naka lay dence naka lay suturaalee saw attaque yi néewu mbokkam mi ba mu gisee baaxoñ bi def la mu def nag xaala la wax ne yaa woylataay ngal la man a aje su ndax damay lokk damay lottu ndax damay tële ana koonu ma nekk mislaadal xuraab comme baaxoñ bii rek fa uwaari ma suturaal sawaat ma dinaa suturaal sawaat ak sama jëmi mbokk mi waaye gannaaw ba mu ko suturaale suul ko fa asbaha bokk na mujj mujj na kon mais naa dimi ne ci ñi nga xam ne tabaarakallaahu dañu rëccu lañ doon def mujj na ko rëccu nag sunu borom ne min ajli dalika ngir jëfi xaabil ju doy waar jii katam naa lañ farataale ala bani israil ci giir googu ñuy wax bani israil lañ taal ci ñoom annahu lay mbir tey mbir mooy man xatala képp ko rayati nafsan bakkan ak bakkan num bakkanee be xayri nafsin te rayul benn bakkan deful lu ñu koy raye yow nga ray ko aw fasaadin mm. deful it ak yàq mm. fil ardi ci bi mm. defu fi ay cambrière ak yu kenn xamul wala ak njaaloog weddi yàlla ak yu ñu fa ka annama xatala kooko dafa mel ni rey na annaas nit ñi jami'an kon daal am na fitu rey àdduna bi yëpp ku rey kenn nit te deful lenn luñ ko reyee yow ku la turaloo àdduna bi nga rey leen loolu rek mooy si bëgg-bëgg loolu rek mooy sa yitte waaye itam waman ah yaa képp ku dundal tere gàntu bañ a rey kenn fa ka annama ahya dafa mel ni dundal na anaasa jamian waaw ndax yow sa bëgg-bëgg mooy ñëpp dund ñëpp am jàmm soo ko defalee kenn soo mënul ñëpp am ko yow dañ lay fay yool boobu sa yéene bu rafet boobu wala xat jaaduhum ñëwaloon na leen rusul naa ndaw bil baynaati ci la leer nañ waaye summa inna kasiran topp lu bëree bëri min ca ñoom ahlul kitaab baada zalika gannaaw lii la musrifuuna way yàq lañu fil ardi Ah, am gir goo xam ne ah, am gir goo xam ne dañu tuub dugg ci diine dégg nga ba ñëwee ci yenent bi sallallahu ñu feebar ba ñu feebaree yenent bi boole leen benn sàmm sàmm bu moo leen di sàmmal ci àll ba yenent bi ne bu ngeen demee ci àll ba nag sawi giléem yi ci ngeen di naan mm. ak seen soow yi mm. su ngeen ko defee mm. seen xeeti jàngoro yii dana wér gaa yi dem ànd ak sàmm ba leen yenent bi boole woon ci àll ba ñu nekk fa di jëfandikoo comme na yenent bi waxee nekk ca loola nekk ca loola ba mu neex leen ba ñu wér ba mu nañ peg lañ leen di sàmm ba sàcc giléem yi daw waaw nii la ñu def alquran dikk ni je ñii nañ leen jëli yonent bi ne dañ leen dabi bañ leen dabee ni alquran waxee noonu la atte bi demee ñuy cuul cuul yi nu roog lu kenn xamul innama jazaau alladina duma lu dul fayu gaa yi nga xam ne yu xaaribuna ñu ngay ruggoo dégg nga di def ay ay gangak yu kenn xamul di jéem a xeex ak allah wa rasulahu wa yasaaw na ñuy dox di jëf fil ardi ci suuf si fasaadan nekk ay agresseur di dogale nit ñi di leen rey ñii di su ngeen leen jàppee an yu xattalu mooy nañ leen leen rey muy benn atte su leen neexee nañ leen rey aw yu sallabu walla ñu pendre leen daaj leen ci ay garab dégg nga ñu ne rey gi dafa war a ànd ak loolu aw tukatta walla ñu daggat daggatee ay diihim seen ay loxo ak seen tànk min xilaafin ci jàllawle loxom day yor tànku càmmuñ ñuul ciw ci naaj wu sunu borom nee na bëgg ci ñoom na leen ko def bu fekkee li mën lu am aw yun faw wala ñu dàqaleen min al ardi ci réew mii ñu nekkoon jële leen fi yóbbu leen ci kaso yi sore sore sore sori sori sori laa ci bëgg zalika lii daal lahum ñeel na leen mu nekk ak gàcca fi dunya te walahum ñeel na leen itam fi laaxira ci àlaaxira adaabun ay duma yoo xam ne azimun yu garaaw a la waaye problème bi mooy illa alladina taabu mm-hmm. lu dul ñi nga xam ne tuub nañu ci ñoom mm-hmm. mooy gannaaw ba ñu defee mbir ma ba pare mm-hmm. avant atte yi di dal ci seen kaw ñu tuub sunu borom ne bu leen def atte bi ci seen kaw waaye nag foofu wax nañ ne si alal ji ñu sàccoon dañ koy delloo seen boroom am ñu ne déedéet comme yàlla daal baal na leen duñ joxe sax alal ji waaye li gën la mooy dañ koy joxe de da nga wax bu baax illa illa leen taabu min qabli an taqdiru la njëkk ñuy dogal ab atte alayhim ci seen kaw la ñu tuub baal leen leen faalamu xam leen ne anna allaha naka yàlla kat jëfewulu mbir xafurun ku bëri sutura la waaye rahimu kon nag na nga def effort kon moom ndax xadd boobu ñu koy xadd mooy dindi àqi doomu aadama yi jëmmi lim defoon ku njaaloo xadd biñ koy xadd mooy dindi bàkkaaru njaaloo ba ku nit xadd biñ koy xadd mooy dindi bàkkaaru rey ga loolu rek la yaa ayyuha alladina amanu yéen ñi gëm yàlla ittaqu ragal leen allah yàlla sama boroom wabtaxu sàkku leen ilayhi jëm ci seen boroom alwasila lépp lu leen di jegel seen boroom ci topp def leen ko dégg nga de moo xam sarax yi ngay def jublu ci jege sa boroom ndimbal yi ngay def jublu ci jege yàlla tabax kër jox ko jaamu yàlla jublu ci jege yàlla amab oto jox ko jaamu yàlla yi ñu ciy faj seeni soxla saaro ambulance jublu ci jaamu yàlla daa jege de waaye itam salaatu al nabi yooyu def jublu ci jege yàlla daa jege kom nag yow mënuloo ko xamuloo yoon wan ngay jaare yàlla nga dem ci ku ko xam mu dox sa digganteeg moom pour wan la yoon woy jaar pour jege yàlla kooku it wasila la muy ab sëri bu mat sëriñ kon yooyu yëpp ay xeeti wasila la mm-hmm. ay moyen yooyu jaar pour jege borom bi la mm-hmm. dégg nga mm-hmm. euh, euh, ma wa jaahidu jihaad leen fi sabilihi ci lu kawel diine yàlla ji laallakum ndax liin tuflihu na ngeen kiilu nee na inna lesi naka gaa yi nga xam ne <laughs> kafaru wala du loolu si tegu weddi nañu law la lahum aka neexoon ñu moom maa fil ardi mboolem li ci suuf jami'an lépp wa mislahu ak lu ni suuf si maahu ànd ak moom li yaftadu ngir nañu jotu bii ca alal jooju ak la muy bëri bëri min adaabi yawmil qiyaama ci mbugalu bisu taxawaay ba sunu borom ne maa tuqubbila deeful nangul minhum ca ñoom ak alal ji lu muy bëri wala hum ñeel azabun ay duma yoo xam ne alimun yu leen di métital lay doon ma ngoog aha daanu bëgg ñoom an yaxruju ñu génn minan naari ca sawara sa ndax métit ga muy métti ak tar wa maa hum déet ñoom bi xaarijiin ñuy am kattanal mën génn min ha wala hum ñeel na leen ci biir sawara sa nañu ci yàlla musal adaabun mbugal muqim mu sax dàkk moo xam ne tabaarakallaahu amul amul bay bàyyi nga euh, daañu fa bëgg a génn ca sawara te génn du mën am amul benn yoon bu ñuy jaar nag pour génn sunu baram ne satti mi ngeen di coow xaw ma wal de détail lañ koy wax ak yu kenn xamul du dañ kaa criminalisé yàlla ne dañ maa déggul rek buñ ma déggoon loolu saafaraw na bu yàgg waaye comme dañoo ës di jaay ne ñoo ma gën dégg jamono ay ja bismillah xam nga ñoom dañ naan nañ ko fi tëj ñaari at ñetti at wala du ko àgg est-ce que tax na bañ ko fi defee bañ ko criminalisé ba léegi tax tax na yëf yi wàññeeku dafa gën a yokku voilà dafa yokk amul njëriñ dafa yokk bu fekkoon ni yàlla wax nag la ba léegi yëf yu sotti na wasaariqu sàcc bu góor bi wasaariqatu ak sàcc bu jigéen bi fu ngeen leen jàppee faktaaw waaye la ñuy sàcc nag na fekk mu mat rubu dinaar loolu it foog nga bàyyi ko ci xel la rubu dinaar nag coow bari na ci ndax juróom-benn junni la wala lu ko ëpp ba léegi ça oto la sàcc kookoo xam nga ne ëpp na rubu dinaar de portable yi la sàcc xam nga ne ëpp na rubu dinaar kooku fu ñu jàpp nañ ni tàppit loxo nday joor ba waaye ahlul isaaraat yi dañuy wax ne sàcc yi ni mu amee ci zahir noonu la amee ci baatin aha sàcc xol yi xol bi itam ah sunu borom dafa digle sàcc ba fay dugg di sàcc dagg leen loxoom mooy iblis ak ñamu ànd ak ak xalaat yu ñaaw yi nga xam ne moom lay dugal ca xol ba waaye lay garder xol ba ba loolu du ci mën a am mooy tudd yàlla gi ngay tudd yàlla ak alquran yi ngay jàng ak yooyu mooy tax iblis du mën dugg foofa dégg nga ba yow loxo boo xam ne bu sàccee juróom-benn junni ñu dagg ko te ko daggoon ci njuum te ñaata ngay fay ah jeex na ma ngoog téeméeri gileem kon kay nga xam ne loxo ba war na wàcce na boppam hmm? yow boo sàccee juróom benn junni ñu ne tàppit loxo ba kon danga ngaa wuruj boo wurujee moom di tekki dara waaye su fekkee dañ ko dagg nit dagg ko te na ma ko reggee jaarul yoon dañuy wax ay ci joxeel téeméeri gileem yow di xaalis bu bëri waaw kon sàcc bu góor beeg bu jigéen bi fàkk taxu dog leen ay déexumaa seen ay loxo jazaan mu nekk ak pay bi maa kasabaa ci la nga xam ne fàggu nañ ko nakaani di mu nekk ak mbugal minallaahi bàyyi koo ci yàlla man daal yàlla lii laa wax gaa yi nag moom dañuy fekk sàcc na dee ñii sànni xeer ñii def lii ñii def laa yàlla déet bu leen rey kon ñoom ñoom yàlla sax ñoom ku tane yàlla leen tane de ndax ñoom dañu ne yàlla ne bu mu dee te pourtant kat dañ ciy jublu ne yàlla soxor wallaahu yàlla azizun aji not ci nguuram la waaye xakimun aji teg la mbir fa mu yelloo aha kon nag moo ñu gën a xam jamonoom moo ñu gën a xam addunaam ndox moo ko bind aha fa man taaba képp ku tuub min baadi zulmihi gannaaw ba mu tooñee da daan sàcc bàyyi na sàcc ay ca baax na waas laha mu yéwénal jëfam lëm mën a delloo ca sàcc ga mu delloo ko seeni borom ay ca bismillah fa inna allaha naka yàlla day yatuubu nangul na tuub alayhi ci moom ci ñàkk dagg gi ñàkk dagg loxoom tam tuub tuub gi dëggu sunu borom nee na baal naa ko loola inna allaha naka yàlla xafurun ku bëri sutura la waaye rahimun ku bëri yërmande la alam taalam xanaa xamuloo anna allaha naka yàlla sunu boroom lahu ñeel na ko moom yàlla mulku samawaati moomelu asamaan yi wala ardi ak suuf yi lépp moo ko moom yuazib mooy duma man yacha mooy xool ku ko neex mu duma ko su waaye wa yaxfir mooy jéggal li man yacha ñeel ku ko neex su tuubee wallaahu sunu xaadirun ku la ala kulli seen ci lépp lëf yow yenent bi nag gaa yi njëkkante di génn ci lislaam di murtat lu nañu see dugg buñ la jaaxle loo de yaa ayyuha rasul yow sayduna muhammad laa yahzun ko bum la jaaxle loo mukk bum la afale loo mukk mukk bum la jàqloo muk alladina gaa yi nga xam ne yusaari'una ñu nga njëkkante fil kufri jëm ci weddi ñi duggoon ba mu yàgg génnaat bu la jaaxal bu mu nga yaakaar ne nekkuloo ci dëgg ne lësin laala moom gaa yi nga xam ne xaalu wax nañu ne ah man naa gëm nañu waaye ñii gëmee bi afwaahim naa fekk la walam tu'min te gëmul xulubuhum seeni xol dara la nanguwul wa mi lësin ak ci gaa yi nga xam ne haadu ay yahud lañu sammaa'uuna dañuy déglu sil lil dañuy déglu si lil bi ñeel ay fen ñoom daal ay nar rek lañ jàpp ne moom la ñuy déglu sil seen seen seen euh, seen fóore ya te loolu li ko waral mooy yonent bi saa salaam euh, dañu wax ne ba nga xamee ne dafa gàddaay Euh, bàyyi ko bàyyi ko euh, màkk ñëw Madinatu Munawwara yahud yi ci seen bopp yeneen bi dafa kóllëranteeg ñoom yàlla dogal nag yahud yi ci seen bopp am ñaari fóori yahud yoo xam ne dañuy njaaloo ba njaaloo nag ñu war leen a dóor yeneen fóori yi di leen layal di jéem a maslaha mbir mi pour bu mu jëm kaw ba yëf yi demee ba soof leen nag ñu ne nañ ko yóbbu ci yeneen bi ba ñëwee nag a ah, jàngoon nañu ko yenent bi laaj leen ndax li seen téere wax na ko wala waxuñu ko ñu ne seen téere waxu ko mu ne indi leen seen téere ñu indi téere ba di wax ba agsi ca ka doon wax jéem a nëbbu la yenent bi doon laaj Abdullah ibnu Salaam ne ko déedéet mi ngi nii comme yow mënuloo jàng ko doon def loolu mooy Abdullah ibnu Suuriya nekk ko mënuloo jàng mënuloo liir moo tax mu lay jéem a bërëxal nii waaye ku njaaloo ci ñoom dañu kaa war a def lii ak lii ak lii mm-hmm. loolu la alquran di nettali fii aywa samaauuna dañuy déglu sil mm-hmm. daañu déglu si mm-hmm. daañu déglu sil li qawmin ñeel ñeneen nit aaxari na ñeneen ñoom daa am ñu leen yebal ñuy ñu lay posé question lam yaatu ko ñoo xam ne ñëwaluñ la dikkalaguñ la yu xarifuuna dañuy jàngal alkalima baat ba min baadi mawaadi gannaaw ay barabam wa yaqulu yaqulunu ñu naan ngeen ñu yónni ña yónni ñoo wax ña ñu yónni ci yonent bi ne leen ndegam joxef na leen haada atte bu jeng ay ca faxuduuhu su ngeen demee yonent bi wax leen atte boo xam daal dafa jeng jël leen ngeen indi ñu jàngale faxuduuhu dégg ko ku baax a baax way lam tu tawhu ndegam nag ubbiwuñ leen ci lu mel ni li ngeen bëgg ñu jàngal leen ko waaye dañ leen a jàngal leneen ah. faadaru woytul wattandiku leen waa ji bu leen jéem a déglu sax la muy wax sunu borom wa man yurid képp koo xam ne bëgg na ah. allahu yàlla ci moom fitnatahu ak réeral ko réeral ko ah. dama ne ku yàlla nam ma réeral falantam li ko doo fekk doo moom lahu ñeel ku mi laaj ci yàlla sooy am dara mooy nooy noo koy défendre ba du wàcc raay bi amu fi mm. ulaaka yoo la gaay alladina mooy ñi nga xam ne lam yurid nammul allahu yàlla sunu boroom an yutahira mu laabal qulubahum seen xol ci bokkaale gi te lahum ñeel na leen fi duniyaa ci àdduna riisin ak gàcca gu mag a mag te walahum ñeel na leen fi laaxirat ci àllaaxira adaabun ay duma adimun yu màgg samaaun wayi déglu lañu lil kazi bi ay fen rek lañ mën a déglu ña fi ñëw déglu ko ci kàcc képp la képp lañu te it ak kaaluun lekkaakoon lañu li suxti ci ngeer ñeme nañ corruption lool loo leen jox bëgg nu daganal la nu daganal la ko waaye it bàyyi xel ne al ibratu bi umumi lafsi laa bi sabab di sëriñ bu ko fi def wala ustaas bu ko fi def wala borom xam-xam bu ko fi def da ngay dugg ci aaya ji de kon nag yow soo demee bay jël sa pour atte fa in jaaw ka ndegam ñëwal nañ la pour nga atte leen yow sëriñ bi wala yow yenent bi fahkum atteel rikk lillaahi wa rasulihi baynahum seen diggante aw aadit wala nga du an hum ci ñoom bañ leen a atte yewi leen ñu dem seen yoon wa in ndegam du mooyu nga an hum ci ñoom bañ leen a atte dama ne tus lañ la mënalul fa lan yadruuka duñ la lor sooy an dara mooy duñ la wàññi dara way na xaakamte ndegam jël nga dis soo nag fa si yéene atte seen diggante ah jëlal say responsabilité nag faxkum atteel baynahum seen diggante lépp it na tege bil qisti cig maandu inna allaha naka yàlla sama boroom yuhibbu bëgg na al way maandu yi dégg nga nee na wa kayfa yu xakkimuunaka sax ñoom dégg nga nee wa kayfa yu xakkimuunaka naka lañ lay jéem a loo bàyyi seen téere bàyyi seen i fóore ñëw ci yow man lool jaaxal na ma te waa indahum nekk na fa ñoom ñooñu a tawraat tawraat ñoom yor nañu ko te fiihaa nekk na ca biir tawraat xukmullahi atteb yàlla bii ñuy laaj fii boo demee ci tawraat da nga faa fekk mu ne faa nga dajji hmm? summa yatawallaw na topp ñu du tawraat ak atte ba fa nekk min ba min baadi zalika gannaaw bañ leen ko attale ba pare wa maa ulaayka yooyu déedi yooyu la gaay daal bi muminin ñuy wéy gëm dañuy soobu rek inna nun yàlla anzal naa wàccee nañu a tawraata tawraat ñoo ko wàccee fiyaa nekk na ci tawraat hudan ak njub goo xam ne day gindee képp koo xam ne yàlla namm na ci moom mu gindiku wa nuurun ak leer goo xam ne day leeral attay tawraat ñu xam fa jaar nga xam ne yaxkumu dana attewoo annabiyuna yenent yi bi ci tawraat yenenti bani israil yëpp ci tawraat lañ daan attewoo ko gannaaw yenent yàlla Moussa wax naa la ñaata yenent fa jaar diggante ak yenent yàlla Isa léegi alladina mooy yenent yi nga xam ne aslamu wommatu woon nañu ñeel yàlla waaye lillazina ñeel na gaay nga xam ne haadu ay yahud lañu dégg nga de wa rabbaaniyuun ak seen borom xam-xam yi seen fóore faddaara lii laay wax wal axbaar ak fóore yi ba tey seen fuqahaaw yi ñoom da daañu jëfandikoo bi mas tuxfisu ci lépp loo xam ne gardeloos na leen ko wattuloof na leen ko sàmmloof na ko wala jëfandikoo loof na leen ko min kitaabillaah ci téere yàlla ba dégg nga wakaanu nekkoon nañu suhadaa di way seede alayhi ci téere ba ne tawraat moomu mooy dëgg falaa tax saw naasa bu leen ragal nit ñi ah. nit ñi matuñoo ragal ragal leen yàlla ah. wax saw ni ah. wala tasaru bu leen jënd bi aayaati sama ay aya sama nan njëg xalilan lu tuutee tuuti bu leen ko def yéen borom xam-xam yi yéen sëriñ yi yéen ustaas yi yéen laay wax jaaduwul ñu jox la dara tax aaya jin ne mu tëddee waxee woo ko bu fi amee wa man lam yaxkum képp koo xam ne atti bima anzalallah ci li yàlla wàccee ah. fa ulaaka yooyu la gaay ah. hum ñoom kese laa wax ah. alkaafirin ñooy way weddi képp koo xam ne li yàlla atte ne nañ ko atte nga lànk na duñ ci atte woo yow yi kuy wut yéeféer bu la ja def na xay dégg de wa katab naa dogal nanu alayhim ca ñoom fiihaa ca tawraat lañu fa dogal nii yàlla di waxee ci tawraat jàngale ko ci alquran adduna bi yëpp bu fekkoon ne teg nañ ko ci ah. jàmm na booy rawatina senegal ah. ñoom ñoo fi jëlee woon peine de mort ah. fu ñu toll na ñëw na ñëw de waaw bis bu nga di gaay ci rajo yi naan na peine de ñëw na peine de mort nga dégg na peine boor bi ñëw sunu borom ne an na nafsa bakkan xamal ne dees na ko bi nafsi suree bakkan waaw ah. ah. boo xam ne ah. jaaru ko nañu ko war a jaaree dañ koy rey de walaayi na bët bu ñu fukk dees na ko fëkk bilaayi ni da ngaa fëkk bët bëtu jàmbur bu càmmoñ ba nga bët ñu bët sa bëtu càmmoñ rek coow li jeex wal an bakkan bi nga njoof bilaan fi ñu njoof sa bakkan wal uzna nopp bi nga njoof ba tey ñu njoof sa nopp mooy daggata bil usni ah. wa sinna ah. bëñ bi nga buddi ah. ñu buddi bi sinni ci sa bëñ rek wal suñu borom xam ne yii bu ko fi topp benn par benn ba ci tànk yàgg yooyu day bëri mu ne xaara war na wal juruuxa war na ci blessures yi xaañ-xaañ yeeg góom yeeg yëpp war na ci xisaasul ak fay da nga kaa gaañ daal foo ko gaañ ci biir bi la ñu seet ñaata centimètre la ñu gaañ la lu tol noona lii buñ ko defoon ah. yëf yi jeex ah. nga ne yàlla ndax da ngay fay toujours suñ la tooñee da ngay fay toujours mu ne déedéet ah. la tooñee dañ laa jam wala ñu njoof sa nopp wala ñu buddi sa bëñ dagg la bëñ bi wàcc <laughs> kon am na mbëri làmb yoo xam ne <laughs> war nañoo leeral kenn mësul dégg loolu nga baale gannaaw ba nga euh, bañ la gaañee ba pare gannaaw bañ la njoofee wala ñu wàcce sa bëñ wala lu mu mën di doon nga baale sunu mu nee na baal gi du la ci topp dama koy nangu fa man tasaddaqa képp koo xam ne saraxe na bihi ca fay googu mu waroon a fayu mënun a fayu fayuwul baale fa huwa loolu de kafaaratun ak njëggal la ak kafaara far la lahu ñeel ko ci ay bàkkaar mooy yàlla dana ko nangu ma waxaat ko wa man lam yahkum képp koo xam ne ateewul bi ma allah ci li yàlla wàccee ci fay yi fa ulaaka la gaay hum ñoom azalimun de ñoom rek ñooy tooñkat yi wa xafay naa toftal nañu ala asaarihim ca jeexantali yenenti yële toftal nañu fa bi isa bni mariam ci isa bnu mariam musaddiqan bir moom muy aji dëggal lima bayna yaday ñeel li nga xam ne moo ko jiitu woon na tawraat waataynaahu joxoon nañ yent yàlla isa ñoo ko joxoon al injila injil ñoo ko ko joxoon fii nekk na injil moomu hudan ak njub goo xam ne day gindi waate ah. wa nuurun ak leer ah. goo xam ne day leeral atey ah. wa musaddiqan ak mbir moom muy aji dëggal li maa bay na yedey ñeel li nga xam ne moo ko jiitu woon ne tawraat kon nga gis ne tawraat moom injil dafa dikk di ko leeral alquran boole di leeral yëpp wa hudan mu nekk ak njub wa mawizatan akuk waar lil muttaqin wa wax nañu ba tey dégg nga ah. na attewoo ahlul injil ah. waa injil nañu attewoo ah. mooy waa kër yént yàlla Isa yi nañu attewoo bi ma anzala allahu la yàlla wàcce ci biir injil ci ay atte nan ko jëfandikoo wa man lam yaxkum képp koo xam ne attewoowul bi ma anzala allah ci li yàlla wàccee ci injil wala ci alquran wala ci tawraat fa ulaayka yoolee gaa yi yëpp bañ ca hum ñoom kese kese alfaasikuuna kuy wër saay saay na leen jàpp jeex na wa anzalna wàccee nañu ilayka ci yow yenent bi alkitaaba alquran bil mu làmboo ak dëgg musaddiqan alquran di aji dëggal li ma bayna yadayhi ñeel li nga xam ne moo ko jiitu woon min alkitaabi ci ay téere alquran wax naa léegi day dëggël waxoon naa la ko léegi wa muhayminan muy aji seede alayhi ci téere booba kon nag faxkum atteel baynahum seen diggante ñoom yahudi yi ak nasraan yi suñ amee problème bay ndi ko ci diine yow kilifa ak diine gi jëlal sa alxuraan ji atte ci waaye nag buñ la jox alal ju tax nga jeng ci atte ba wala am koo ciy faral ngir néew dooleem wala am koy faral ngir bëri dooleem déedéet wala tattabi bul topp ahwaahum seen bëgg-bëgg ya ci atte ba soo demee ba jël sa responsabilité pour atte lépp na jaar yoon amma jaaka ci li nga xam ne ñëwal na la minal xàq ci dëgg li kullin ñeel na képp kenn min minkum ci yéen xeet yi siraatan ak sariya wa minhaajin ak yoon wu leer woo xam ne ci lay jaar pour tegewu ci diineem xanaa kay gannaaw ga la kenn ku ne dirax sa mbir lu ci bokkul di rax mbir lu ci bokkul mm-hmm. gannaaw ga ñu rax ci tawraat mm-hmm. injil ñu rax ci lañ ci rax mm-hmm. alquran moom kenn mënu ko ndax dafa am garantie waaw garantie bi nekk ci alquran nekkul fee inna nahnu na zikra wa inna lahu la xaafizun kon coow way bëri rek masque boo ko ci tegee mbaag sa da mbaag tomb nga bàyyi ko ci gaa yi lijjanti kaag yow walaw shaa allahu bu neexoon yàlla de la jaalakum yéen ñëpp mu def leen ummatan ngeen di xeet waahida bay benn yéen ñëpp de bu leen mu def leen ngeen nekk ci benn sharia du ngeen ci am benn wuute tawxid bi nag benn la moom waaye sharia yi moo wuute walakin waaye yàlla moo leen séparé li yabluwakum pour mu seetlu leen fii ma ataakum ca lam leen jox ci sharia seet ba xam ña koy topp ak ñay gàntu doxe ne neen yàlla ne na maa ko bëggee noonu waaye yéen ñi nekk ci diine l'islam ak yéen ñi nekk ci yeneen diine yi yéen ñëpp laa sant lii mm-hmm. fa sabiqu mm-hmm. njëkkalante leen mm-hmm. alxayraati yiw yi aywa jazakumullah alxayraati yiw yi njëkkalante leen ko ilallaahi jëm ci yàlla mooy la ngeen ji seeni téere leer na nañ taxaw leen ci ñoom it la ñu jàng ci seeni téere leer na nañ taxaw leen ci fa yunabbiukum daa leen xamal moom yàlla sunu boroom bi maa kuntum ca saabu la nga xam ne nekkoon ngeen taxtalifuuna doonte wuute seen mbiram diine atte yi moom mënul leer fii comme la góor gi bu saaxo doon wax rek kenn ku ne sañ nga taxaw na yaa ngi ci dal sam xel waaye maa nekk ci dëgg wala maa yor dëgg moom déedéet ñun dañu jàpp ne alquran moo dal suñu xel ñu nekk ci di góorgóorlu rafet ci njortu keneen itam noonu la waaye ci kanamu yàlla ngay xamee ndax yow jàll nga wala jàlloo kuntum fii taxtalifun waane hey uxkum atteel bayna ah ah noonu nañ taxaw benn yoon rek nañ ko ni ba aay bi jeex mu taxaw rek ane uxkum atteel baynahum seen diggante yow yenent bi bi ma anzala allah ci li yàlla wàccee ci yow wala tattabi bul topp ahwaahum seen bëgg-bëgg yi kon yow sëriñ daara bi yow ustaas bi yow sëriñ bi ku ñëw di attewu ci yow wax ko la yàllaa ko yonentam wax bu ko neexee loolu la yàllaa ko yonentam wax bu ko naqaree loolu la yàllaa ko yonentam wax suy jëfandikoo soo yónneeku ca yow waxal rek li la war wahdarhum wattandiku leen yéen sëriñ yi yéen ustaas yi an yaftinuuka ñu fitnaal leen ci atte yi mooy di jéem a at di jéem a atteloo ngay atte atte boo xam ne wuute naag bu yàlla wuute naag bu yenent bi te soo ko defee am am ba dañ lay sànq mooy dañ lay réeral añ am baadi ma ci lenn la nga xam ne wàccee na ko moom yàlla jëmee ko ci yow fa in tawallaw su ngeen du mooyoo faalam xamal ne annama yuridu xamal ne bëgg na allahu yàlla an yusibahum mu duma leen di bi baadi zunubihim lenn ci seen bàkkaar yi ñuy def way na kasiran naka lu bëree bëri ah. mais naa si ci nit ñi fii ah. ah. la faasixuun ay saay saay képp lañu sadaqal aziim ñu jàng fatiha salaatul fatiha def ko hadiya yéen saa